mujj mi mu cee bokk ndax kii tey bu ñu gisee tey ñu def lu ñu doon def boole ko ci ñu wane ko ci télé yi man leer na ne ma ñu waratu def erreur dañoo war a fonk ndax sagal ko lañu ñu war a def bis ni ko tey sagal gi mooy bu ñu gisaatee xam ne ñu ngi ci yoon wàcc ñu loolu mooy sagal ko ndax kilifa soo toogee moom wàcc dikk toog wax ak yow sédd na boppam cër waaye sédd nañ ñun cër te li may wax kilifa yu bari rek considération rek li nit di jàppee nit te gis nañ ni rek ñoo considéré yal na yàlla considéré yal na yàlla jàppale te sunu waaye de yàlla xam na ni eh, damaa am sax ci yow yërmande que Seydina ma am ci yow yërmande mooy nit am na foo xam ne bu ko fa yàlla tollalee rek da ngay dem ba xaw da ngay xam ne kii am na coono. bu ko waxee dana mu amul benn problème a mel ak loolu mën a da koy comme donc da ngeen ni yàlla ku baax la waaw kon ñu ngi koy li ko ñaanal rek yàlla na ko dal ñu noonu koy ñaanal ndax aussi tamit yow it lay gërëm parce nit ku baax la